alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah daf ñu fa leeralal boppam daf ñu fa fangaaral boppam ci suuratul xadiid bi mu naan wa huwa bi kulli shay'in alim bi mu ne la man de maa njëkk yow mi am xel mën ngaa wax ne ah damaa tardé moo tax kat li jiitu mënuma koo gis mu ne la wal aaxiru maa mujj nga ne ah jiitu moo tax li mujj amaana duma ko fekke mu ne la wal zaahiru feeñ li feeñ mooy li ngay gis kon kañ mënatoo gis leneen lu dul moom kon kañ boo naan yàlla dafa nëbbatu baatinu yàlla ne la déedéet man it maay zaahiru damaay li feeñ de waaye nag yow mi koy gisit dangaa feeñ moo tax duut ne nit mooy gis yàlla yàllaay gis yàlla allahu laa yaraahu illa allah yàlla rek kay gis yàlla moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu biñ ko toppee def ñoo amat yóbbu ne jëppee yàlla ba parce que loola rek mooy mission am parce que loola rek lañuy ñu doyee sëriñ te pourtant ñi koy weddi seen sëriñ si bind nañ fi luy wane ne yàlla dañuy egg ci moom ñenn ñi bind ne yàlla dañ koy gis kon kañ ñi koy weddi dañoo desee xam li seen sëriñ sa oon waaye ñoom ci junj lañ amoon bàyyi nag dafa ñëw pratiquer ko def loo ko nit ñi bañ egg fa boo demee ci masaalikul jinaan bu sëriñ Touba. ci baabu tasawuf dañ fa fekk mu lay wax naa laan qultu fa jiilu za zamani jahilu ilma tasawufin fa xayran ahmalu su dee ay taalibee moom fi nañ dem ci xool ko fa suñ ko fa fekkut Ousmane Diouf a ngi nii ñu jox ko sama adresse ñu oo ma ma da fen sëriñ Touba moo wax ci masaalikul jinaan ci baabu tasawuf ne qultu fa jiilu da zamaani jahilu ilma tasawufin fa xayran ahmalu is jahilu li kawnihi sabila li xadaratillahi fa xaabul jiila is jahilu bi kawnihi xayru zuxar yowma taxaabuni ida alhawli xadar is jahilu bi kawnihi xayru ulumin yafna alfata umruhu fiha umumu mu ne wax naa man Sëriñ Tuubaa ne nit yi jamono jii de réeree nañ xam-xami xam yàlla mu ne fa xayran ahmalu xam-xam bi gën ci xam-xam yi moom lañu réeree mu ne is jahilu bi kawnihi sabila li xadaratillahi mu ne réeree nañ tasawuf te mooy yoon bi lay yóbbu ca pays yàlla ba mu ne la fa xaabul jiilaa ñooñu réeree yoon booba kat perte nañ kon booy askanal sa bopp ci moom di weddi xam yàlla Serigne Touba mi ngi wax naan laan perte nga fa xaabul jiilaa mu ne ñi réeree yoon ba leen yóbbu ca yàlla mu ne ñooñu perte nañ mu ne parce que xam-xami xam yàlla maarifatu billaahi mooy xayru zuxar mooy yóbbal bi gën ci yóbbal yi yow bu yàlla dajalee jaam ya mu la xam-xami maarifatu billaahi muy xam yàlla mooy xam-xam bi gën ci xam-xam yi yëf nal fata fiha umumu jeexal dundam gi te du du jeex bàyyi na la man zaqaha yasiru seyral abadi yijnil maarifa bi fadli madadi bàyyi mu ne ku ñam pay yàlla ba dox dox bu amul fu em waaye di witti maarif ci biir dox booba gannaaw yàlla amul fu mu em kon kañ dox ci yàlla amul fu mu em boo demee ci zajrul qulub bu alxaaj malik si mi ngi lay wax naan laan lawla sukunul aalamina li gayrihi la raawhu iyaanan fal ilahu qaribu mu ne bu o ak nit ñi jubli gin jublu àdduna dëddu yàlla kon dinañ gis yàlla jahran moom ematul na la da nga egg ci yàlla ematul ne la da nga xam yàlla waaye danañ gis yàlla lañ wax jahran la raahu iyaanan dinañ gis yàlla jahran mu ne la fal ilaahu qaribun parce que yàlla dafa jege benn yàlla lu am la ñëpp nangu nañ te kullu mawjudin rek yustaxaqu an yura te lépp lu am rek lu mën a gis la lépp lu am rek yelloo na ci ñu gis ko gannaaw yàlla lu am la kon koy yelloo na ci ñu gis ko parce que gis nga mooy tegtale dëggoog am nga moo tax moom mu ne la kon ñi gisut yàlla jublu àdduna moo leen xañ gis yàlla waaye buñ jubloon yàlla rek la raahu iyaanan dinañ gis yàlla jaxran parce que fal ilaahu qaribun parce que yàllaa ngi jege lool ndax yàlla moo wax yonent bi ne ko wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani mu ko sa jaam yi suñ la laajee anama man yàlla ne leen maa ngi jege lool jegeen gi dafa ëpp ba moo ñu gën a jege suñ bopp yàlla amut ci gën ñoo jege suñ bopp buumi xol gi nga xam ne bu dajee bu dajee ñi dee yàlla nee nañu moo ko gën a jege waaye nag jegeem googa ci la nëbbu ndax bu Busayri daf ñoo wax nañu ixtafa minhum ala qurbi maraahu wa min shiddati zuhuri xafaahu mu ne yàlla dafa nëbbatu ci feeñam gu ëpp te mu ne feeñ gu ëpp day waral nëbbatu kon kay kuy askanal sa bopp ci alxaaji Malik si di weddi gis yàlla moom nee na la jublu àdduna moo la xañ yàlla parce que bu taxutoon ak nit ñi liñ jublu àdduna kon la raahu iyaanan dinañ ko gis jaxran waaye lii yéeme du gis yàlla gis leneen lu dul yàlla moo yéeme olof yi de dañuy wax naan lu dul yàlla neen la te neen mooy lu amul kon kañ gis lu amul moo jafe gis neen moo jafe waaye lu am moom gis ko jafetul Abdul Qadir Jeylaani wax la ca téeram ba Guniya mi ngi lay wax naan laan iyaaka an tastabida al amra fa innahu qaribun ala man fihi lil xaqi taabiun mu ne la bul jël yàlla def ko mu nekk lu sori mu ne la yàllaa ngi jege lool waaye jegeem nga nag ki yàlla uññu xolam bare rek kooku rek moo mën a xam jegeeg yàlla mu ne la fa laysa yura rahmaanu illa bi aynihi wa dalika xukmun fi lxaqiqati qaatiun mu ne waaye nag ca bëtam ya moom yàlla ca la ñuy gisee yàlla kon dànk sa bët di bëti yàlla rek doo gisee yàlla xadisul qudsi ba moo ñu koy dëggal yàlla moo wax ci xadisul qudsi ne la yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafilil xayri xatta uhibbuhu fa ida ahbabtuhu kuntuhu mu ne sama jaam bi su dañut di ma jegeñ lu ci nawaafilul xayri man yàlla dinaa dem ba bëgg ko te waxtu ma ko bëggee rek nekk di moom kon bu la yàlla bëggee rek nekk di yow bu yàlla nekkee di yow nag kon kañ bëtee bëti yàlla la moo tax ci beneen riwaaya def na kuntu samaahu alladi yasma bihi wa basarahu alladi yabsur bihi mu ne man maay nekk nopp ya muy déggee maay nekk bët ya muy gisee maay nekk loxo ya muy jëlee maay nekk tànk ya muy doxee far mu ne la man maay nekk di yow kon kon bu yàlla nekkee di yow ku gis yàllaa gis waaye kan la gis boppam rek la moo tax allahu laa yaraahu illa allah yàlla rek ay gis yàlla moo tax bàyyi day wax ne ñiy weddi yàlla de li ñuy weddi ñoom ñu koy def ñuy sikkar tuuti sëriñ baa ngi ñëw Cheikh Ibrahim Mahmoud Niass ñu ngi santaar yàlla ci ndolla li nga xamante ne nii jox nañu ko muy ñi dajeeg jëmm joo xamante ne nii ku dend ak moom yokkute rek ci ngay nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga xool nit yi yàlla bég ci xool googa mu ne yàlla dina la ci bindalee jéggal ci mboolee mi bàkkaar cheikh ibrahima ñes radiallahu anhu waxoon ñu ne ñu dañuy teew ci jotaay xam-xam yi la siyama ida xadara al kabiru rawatina su ca mag ña toogee muy mag ña ci yàlla kon ñu ngi sant yàlla ci biñ toogee am ngënee lii la taxoon cheikh ibrahima ñes radiallahu anhu wax ñu ne ñu toog ci jotaay yi muy toog ak leer ci leeri cheikh ibrahima ñes yi ambassadeur ci ambassadeur yi Cheikh Ibrahima Niass yi loxo ci Cheikh Ibrahima Niass muy Mawlana Cheikh Ibrahima Mahmoud Niass mi nga xamante ne nii moom lañ dend nga xam ne lépp lu luñ fi wax muy xam-xam rek ci moom lañ ko rootee luñ fi wax nag lu dul xam-xam loola noona ci suñu ak matadira ak suñu réer waaye lu ñu wax muy xam-xam rek du ñun ñoo ko wax waaye moom la ndax moo ko def ci ñun teg ñi ci yoon bi ba bare ñemeloo ñu yoon ba ñiy wax ne ba tey Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu dafa wax ne pourtant ñiy weddi ñi naan maay yàlla mu ne ñooñu ña ngay la ñuy weddi ñoom ñoo ngi koy oote te yëguñ ko mu ne boo jàngee tawxid ci melo yàlla yi sifaatullah yi mu ne la dem nga fay fekk ñu naan laan xayaatu dund yàllaa ko moom samu dégg yàllaa ko moom basaru gis yàllaa ko moom alkalaamu wax yàllaa ko moom alwujudu am yàllaa ko moom ku qudratu kàttan yàllaa ko moom mu ne yooyu ay melo la yoo xamante ne nii yàlla rek moo ko meloo mu ne te yow nga ne yaa ngi gis te yàlla nee na moom rek moo moom gis mu ne kon kañ nee nga yaay yàlla mu ne yow nga ne yaa ngi dégg te yàlla nee na moom rek moo meloo ak dégg kon gañ mun a nee nga yaay yàlla yàlla mu ne moom rek kay dund moo moom xayaatu yow nga ne yaa ngi dund kon gañ nee nga yaay yàlla al wujudu ak am yàlla rek nee na moo am yow nga ne am nga kon gañ nee nga yaay yàlla nga xam ko ak nga ñàkk koo xam yow la ngay weddi yaa ngi ci di ko oote te xamoo ko moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu li sëriñ si doon junj muy abyaat yi ma wax léegi ci sëriñ si nga xamante nii ñoom lañ topp fii ci Sénégal ku ci ne junj na la na la yàlla dañ koy xam Cheikh Ibrahima Niass nag radiallahu anhu bi mu dikkee waxuñu ne ñu yàlla daf koy xam waaye daf ñu faa yóbbu ñu ci junj waaye daf ñoo enu rek yóbbuñu fa dafa ñëw rek nañu wusulu jamii almasikina bi xabliha taxaqaqahu man lam yukadib bi rabbiha mu ne képp koo xamante ne nii jàpp na ci sama lef man Cheikh Ibrahima Niass dinaa la yóbbu ca pays yàlla boobu pays booba gaayee doon mu ne man maa lay ombat yóbbu la ca a nag léeg-léeg sax xaal bi day wax naan fala ahadun yaqsudu nii maa arafa allahu samad amul kenn ku koy jublu lu dul xam nga yàlla boobaa yoon ba sori gim sori woon jafe-jafe yi bëri yee ca newoon bàyyi bi mu dikkee def nañu lem naa yoon ba dindi naa jafe-jafe ya ba ku ñëw rek egg ca pay yàlla ba moo tax bi mu dikkee mu ne ñu tawaytu wa sahaltu tariqa ila alxaqi li kulli muridin wasli lil xaqi bil xaq bàyyi mu ne naa yoon ba gàttal naa ko ñeel képp koo xam ne bëgg naa egg ca pay yàlla ba yoon ban la bay lem moo yoon bu gudd booba nga xam ne Abdul Qadir Jeylaani defoon na ci fanweeri at dooga egg ca waxam ja muy allahu qul wa daril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan buluga kamali yoon woowa nga xamante ne nii ibnu farid def na fa ñeen fukki at ba ba egg ba doog a egg ci yàlla doog a yaquluuna li sifha fa anta bi wasfiha xabirun ajal indi bi awsaafiha alamun safaun wala maun wa lutfun wala hawun wa nuurun wala naarun wa ruuxun wala jismun yoon booba nga xamante ne nii imaam Junayd yi def na ci fukki at dooga egg ca pay yàlla ba ba ñuy junj naan ñu an yamitakal xaq an ka wa yuxiika bihi pour nga nekk niti yàlla il faut yàlla rey la ci sa nite gi dundal la ca yàllaam ga yoon booba nga xamante ne nii imaam Ghazali def na ci fukki at ak ñaar moom it di tarbiyu ba doog a egg ci yàlla ca bañ koy jës bu ci mu jël sikkinam bi balee ko du duusi marché ba kon yoon booba nga xam ne ay nangami at lañ ci daan def am na ñoo xam ne miiras nañ seen bopp dugg ci àll bi ba dee fekk leen ba te xamuñu yàlla am na ñoo xam ne laata ñu koy xam ay xob lañ daan lekk ci àll lañ dëkk gàddaay lépp def ci ay nangami at dañoo xam yàlla rek dee doog a dee am na ñoo xamante ne nii dem nañ ba sonn te xamuñ bàyyi mu ne la nag yoon booba nga xam ne dafa guddoon yoon booba nga xam ne dafa jefewoon gàttal naa ko lem ko ñeel képp koo xamante ne ni bëgg naa dugg ca pay yàlla ba ba amatul at amatul fukki at amatul ñaar fukki at amatul sax ya góori yàlla yi di junj da nga passé foofa ndax ku ci mel ne Abdul Qadir Jelaani li muy foor foor ci maarifatu billahi lu muy foor foor ci maqaama ba tolloon ci maqaamaay wax ne sama tànk bi teg naa ko ci doq góori yàlla yi ci lu ko dalee ci aadama ba ci jamono moom bi mu eggee ci yàlla lam wax taalibe baay bi gën a tuuti bu eggee ci yàlla bu ko waxee ñu ne ko ama ko fatu parce que eggee ci yàlla def ne maa fii jubbati illallah sama manto bi dara neewu ci li du tudd yàlla kon moom manto baa fa ba yàlla di fa xaj taalibe baay bi gën a tuuti bu waxee loolu ñu ne ko demal tarbi jiwaat xamagoo yàlla kon moom maqaama ba mu toll ba koy tiitaroo ba koy wax maqaama booba passé nañ ko maqaamaam la muy foor foor dem na ba mu yàgg mu ne amri bi in qultu kun yakun kullun bi amrillahi fahkum bi qudrati mu ne sama mbir mooy mbiri yàlla kon moom mbiri ma ngi fa mbiri yàlla ne ba ñaar ne fa te na Ahmed Tidiane nag daf ñoo waxoon nañ moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu bi mu dikkee daf ñoo dindi ci bokkaale bañ set wecc la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci xadis ne jibril daf koo dikkal na ko yàlla nee na naa la bégal ne la man maata min ummatika walam yushrik billah daxalal janna sa xeet wi ku ci génn àdduna te fekk bokkaalewut ak yàlla rek dugg na ajana Cheikh Ibrahima Niass mooy ki nga xam ne moo ñu jëlee ci bokkaale yàlla googu noona ndax nit ki tànka xamul yàlla yàlla du jéggale parce que inna allaha laa yaxfiru an yushrika bihi wa yaxfira ma duna dalika liman yashaa yàlla nee na lu ne mën na koo jégale ba mu des bokkaale innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna wa mawaahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee na képp ku koy bokkaaleeg moom xaraamal na la àjjana kon kañ pour nit ki mën a egg ci maqaamaay góori yàlla force mu mën a mocc mucc ci bokkaale tant que muccoo ci bokkaale nag doo xam yàlla tant muccoo ci bokkaale doo mën a wéetal yàlla bëri na ñu naan dañuy wéetal yàlla te fekk eggaguñ ci darajaay wéetal yàlla waxtu wuñ naan dañuy wéetal yàlla rek ñu ngay wéetal yàlla ndax wéet mooy lenn rek ne fi waaye waxtu woone yaa ngi wéetal yàlla te yow yaa ngi fa yàlla ma ngay wéetal nga fa yow wéetalatoo yàlla da koo wéetali te pour nga mën a wéetal yàlla il faut nga mucc ci bokkaale te yàlla nee na lu nekk mën na koo jéggale ba mu des des bokkaale te bokkaale mooy nga amal yàlla ba pare amal leneen ca wet ga moo tax Cheikh na Ahmed Tidiane daf ñoo waxoon nañu xaqiqatu tawxid laa tudrak mu ne dëgg dëgg wéetal yàlla sax neexut a jot ku dul aarif billaahi rek mënoo tee doot jot mu ne tànk yaa ngi yëg ne am nga yàlla am na mu ne la fa dëmma isnaani boobaa ñaar dafay ne mu ne la waxtu wu ñaar amee nag fa ay na tawxid kon ana wéetal yalla moo tax imam testeri bi muy wër yàlla dafa dem ba mu yàgg muy wër yàlla fu ne foog ko leneen te bàyyi nee nañu waxtu woo jugee ne yaa ngi seeti yàlla booba nga réeree yàlla mu ne la parce que la ngay seeti mooy yaay ki koy seeti a tatlubu layla wa hiya fii ka tajallati wa taxsibuha xayran wa xayruka laysati mu ne yaa ngi wër yàlla te fekk yaay moom yaa ngi koy foog leneen yaa ngi koy foog keneen te du keneen ku dul yow moo tax waxtu woo jugee ne yaa ngi koy seeti rek réeree nga moo tax seet ga mooy nga dellu ci sa bopp moo tax yàlla bi mu lay ebal ebalu la feneen waaye wa fi anfusikum afala tubsirun la la waxoon xanaa dooma seet ci sa bopp moo tax mu ne la kon tànk yaa ngi yëg ne am nga yàlla am na kon ñaarang fa te waxtu wu ñaar amee rek dañagoo ci bokkaale te amagoo wéetal yàlla Alfayda FM Cheikh Ibrahima Niass nag radiallahu anhu bi mu leneen la ñu dàqal ba gisatuñ leneen yàlla rek leen gis parce que yàlla rek a am moo tax imam Tastari it dafa dem ba mu yàgg ci wër bi muy wër yàlla mu ne ñu anal muhibbu wal habibu fa ma damastaani mu ne man maay ki bëggoon yàlla ba di ko wër fu ne waaye ndekete man maay ki ma bëggoon mu ne hay kon kañ fa ma damastaani ñaar neew abu yazid al bustaami bi muy wër yàlla da ko wër fu mu dem ba mu yàgg mu gis ko ci boppam mu ne xëy subhaani ma azamu shani fekk ma ngay sàbbaal yàlla naan subhaanallahi mu mu yàgg rek mu ne subhaani maa ngi sàbbaal sama bopp ma azamu shani ndek de sama mbir rek a màgg mu ardi wa samaau samaai mu ne suuf si sama suuf la asamaan si ndek de maa kon moom lam jëloon ne yàllaa ko moom dem na ba mu yàgg mu gis ne ndek de moom mooy mi moom waaye nag bàyyi bu la sànnee ci pays ba dag ba dul gisati loo moom parce la shay'a ghayrahu wa ma damma bàyyi ba ba leneen du fa nekk lu dul yàlla kuy egg du fa ne lu ñuy egg du fa ne moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu la ñooña doon junj naan dañ fay egg moom def na la boo jàppee ci man rek ma sànni la ca pay ba lu waral loola fa jaw bi fa yaafin fil mahaarifi lam turam wa qad xasural aqtaabu an darki shawiya mu ne parce que dañ koo duy ak ay mahaarif ba mu fees dell ba mbooleem xutbu yi gàttal ñu nañ ci dab ko moom Cheikh Ibrahima Niass mbooleem xutbu yi gàttal ñu lu waral loola parce que ñoom lañ doon junju ci junj ko lañ am waaye moom mi nga xam ne moo ne ñu fa inna nii wakiilu sirri sirri mbooti mbooti maa ko yor moom mooy ñëw ne la boo jàppee rek mu yóbbu la ca pay ba parce que mënoo jaar ci beneen buntu egg lu dul buntam ndax waxoon nañu nañu fala aarifun illa bi baabiya waaqifun udiru wa astalqawma durran bi faydati mu ne kenn du xam yàlla lu dul sama buntu nga jaar parce que maay kii ommate maay kii nandale moo tax mu waxoon ñu nañu udxilul xalqa xadaratul xaqi ujli mandaral mustafa aynu safaa'i mu ne maay kiy jël nit ñi ommat leen yóbbu leen ca péeg dëgg ga yóbbu leen ca péeg yàlla ga ba pare nag taxawee feeñu waaye yónnantu bi moo tax mboolem xutb yi gàttal ñu nañ ci dëpp ndax bàyyi waxoon nañu ne ñu falam yakun lil aqtaabi qabliya mithla ma li dal abdi min faydin yaruqu sanaa mu ne mboolem xutb yi amul kenn ku ci am lu toll ni faydu bi ma yàlla jox amul kenn ku ci am may lu toll ni cetiwe ci faydu bi ma yàlla jox moo tax mu waxoon ñu ne ñu ruqitu zural irfaani jubtul mafaza ila alxadarati alxulya wa lil faydi xaaisa bi xubbi rasulillahi ahmada sayidi fa sirtu ila almahbubi niltu aljawaisa fa in daysa alaxtaabu fi kulli mashhadin bi mashhadi ayni zaati xusnul marakisa lu tax mu raw leen parce que bàyyi nee na toog na ci njolaxtali xam-xam waaye emut ca toog ca de waaye dafa am ndigal ci tasaare ko parce que waxoon nañu nañu wala abdu qad laqi ayna al ilmi wa jaahu al iznu biduni wahmin mu ne jot na jëmmi xam-xam te jot na ndigal ci tasaare ko gannaaw jot na ndigal ci tasaare ko kon gañ kenn mënatu koo téye moo tax baay mu ne bi mu déparé rek ñu ne ko doo fi oote bàyyi mu ne ah, ñi may wax na man bu ma wax yaquluuna lii laa tuxanni mu ne walaw saqawul jibaala xunenin maa sa saqaw nii la xannati bàyyi mu ne xanaa xamulee ne liñ ma nandal lu tuuteem suñ ko nandaloon doji xunenin ba ca màkk sax doj ba wax rawatina kon man nañ ñi naa man bul te man ñi nandal ma ba ma fees dell ba ne xadim tala al xawdu wa qaala qartni mahlan ruwaydan qad malatabart nii moom mi nga xam ne duy nañ ko ba mu fees dell ba mu wax yàlla na ko doy na doy na bii yoon fees na te yonantu bi liñ ko duy duy terewut yàlla dina ko waqul rabbi zidni ilman yow yàlla dolli ma bàyyi nag ne la man fees na doy na doy na lu waral loola ba mu ne fees na doy na doy na parce que bu feesee amatul feneen fi ñu ndax bàyyi dafa ñëw boole ñaari kaase moom laa doon misaal démb ci conférence ba bàyyi dafa am ku ko musalaaj na ko yonantu bi de xam nañu rôlam muy tasaare shariat Cheikh Tidiane it xam nañu rôlam muy tasaare tarix waaye yow bàyyi lan mooy sa mbir bàyyi na ko kaas bu fees ak meew ak kaas bu bees ak ndox suñ leen tegee bëgg leen a jaxase nan la ñuy def waa ji ne ko ngay uti ci kaas bu leen gën a mag nga mën leen cee jaxase bàyyi na ko ana tilkal kaas su man maay kaas booba kon kañ kay bañ ko duyee ba mu fees dana ko doy na kii doy na lay wax moom nag moom du waxtu bu feesee rek amatul ku ñuy duyeel ndax ba mu feesee la toq loola ñun ñëpp ci lañ naan ku nekk jàpp na yaa ngi fees dell fekk ak toq rek nga naan ci bàyyi moo tax bàyyi waxoon nañu la ñu maqaamaay Cheikh Tidiane mooy hada atauna famnun aw amsuk bi xeyri xisaab yàlla dana ko jëlal may gaa ngi bu la neexee téel bu la neexee mayeel mu ne war dal abdu xutiba bi inna hada la risquna ma lahu min nifaat mu ne yàlla nag dana ko yow bàyyi sama xaama mooy jëlal may yaa ngoog te du jeex lu la neex defal te du jeex mukk ma lahu min nifaat moo tax biñ ko diyee ba mu fees mu ne ko doy na doy na doy na yow yàlla mu ne la moo tax jot na ndigal ci tasaare ko kon kat jot na ndigal ci wax mu ne la nag may yooyu yëpp nag dinaa ci tudde benn muy walil faydu xaayisa may ga gën a rëy muy faydu gi te faydu jëriñu dara lu dul muccal nit ñi ci bokkaale yàlla faydu jëriñu dara lu dul jël nit ki def ko mu nekk dëgg dëgg nit gi yàlla soxla ndax toujours damay wax ne bàyyi ca tukkeem ya ca gana bi muy wax naan fa surtout fawran xiifatan li yendi ka anna kullal xalqi saaru indi bàyyi mu ne bi mu eggee yendi daf na mbindee fi yàlla yëpp uy si nañ ma man bàyyi nit ñëpp uy si nañ ma te bàyyi lu mu wax rek noonu la bàyyi ne nit ñëpp uy nañ ko te am na ñoo xam ne duñ ay taalibeem am na ñoo xam ne bokkuñu ak moom tariqa am na ñoo xam ne bokkuñu ak moom diine kon ko ñooñu ñëpp duñ ay taalibeem te bàyyi ne nit ñi uy si nañ ko mu des nag ñu xool lan mooy nit kan mooy nit nit mooy ki def li tax yàlla bind ko parce que yàlla def nañu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yahbuduni binduma jinne binduma nit lu dut ñi jaamu ma moo tax bay waxoon ne bi muy firi alquranul karim mu ne alquranul karim li muy bëri bëri bismillahi la ak minal jinnati wa naas mu ne saare la muy bëri bëri pour jinneeg nit jëfandikoo ko ngir egg ci bismillahi googa kon kañ mu ne la jinneeg nit la yàlla bind waaye leneen li yàlla bind yëpp pour jinneeg nit jëfandikoo ko pour egg ci laahi googa di yàlla kon kañ li tax yàlla bind ñu mooy ñu egg ci yàlla moo tax yàlla nañu binduma jinneeg nit lu dul ñi jaamu ma waaye yàlla nammu ca jaamu ga lu dul ñi xam ko parce que nit mënta jaamu kenn lu dul ne dafa fekk nga xam ki ngay jaamu kan la moo tax boo demee ci ibnu abbas ak faxru razi ñoom ñëpp ak ibnu kasir ñoom ñëpp biñ lay firil aaya booba dañ na la yaani bi yaabuduuni ay yi yaarifuuni li yàlla namu ci ñi jaamu ko mooy ñi xam ko parce que ku xamul yàlla mënu koo jaam moo tax yàlla wax na ci xadisul qudsi ne aarifuuni qabla an ta taabuduuni fa in lam yaarifuuni kayfa yaabuduuni yàlla mu ne xam leen ma njëkk ngeen may jaamu su ngeen ma xamut nan ngeen may jaamu parce que jaamu ki ngay jaamul yàlla pour nga jox ko yàlla la waaye boo xamul yàlla boo paree di jaamu yàlla jaamu ko koo koy jox tey kat booy liggéeyal nit te xamoo ko ngay liggéeyal bu fay jotee te danga doo am koo tàllal loxo mu fay kon kañ boo demee bay liggéeyal nit na fekk ka ngay liggéeyal nga xam ko ndax bu fay jotee nga dem tàllal mu fay la kon it kii jaamu yàlla di xaar yàlla fay ko bés penc dafa war a xam yàlla moo ma war koo fay mooy kan te jaamu yàlla mënta wér lu dul ne da nga xam yàlla parce que yàlla dafa wax ne pour nga jaamu gi nangu il faut nga teewlu ko moom yàlla moo tax bi muy tagg sax alladina hum an la taggoon yàlla mu ne ña nga xam ne bu ñuy julli dañ may teewlu man yàlla yàlla mu ne ñooño ñooy ñi texe qad aflaha al muminuun ñooño ñooy ñi texe waaye ña nga xamante ne nii ñoom la mooy ñi nga xamante ne nii bu ñuy julli duñ teewlu yàlla fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahun yàlla mu ne mbugal ñeel na ña nga xamante ne nii waxtu wu ñuy julli duñ ma teewlu man yàlla te ku xamul yàlla mënta teewlu yàlla tey nga ne yaa ngi jullil yàlla war a teewlu yàlla te xamoo yàlla kon looy teewlu boo kabaree allah akbar war a teewlu yàlla xanaa nga xalaat image bi la sa xel mi jox ne yàlla noonu la war a mel rek moom ngay teewlu julli koo julli nag am yàlla ju bees léeg-léeg am yàlla ju toog ci chaise ji kaw asamaan léeg-léeg nga am yàlla ju kaalaw léeg-léeg nga am yàlla ju teeyet waaye yàlla mooma nga am yow yaa ko bind te yow yàllaa la bind kon kañ pour jaamu yàlla wér il faut nga teewlu yàlla kon li tax yàlla bind ñu mooy ñi xam ko kon kañ ki def li tax yàlla bind ko kooku mooy nit ku ko deful nag yàllaa la génnee ci cadre ci cër ñooña la yàlla doon xool ba mu yàgg mu ne leen in hum illa kal an'ami bal hum adal ñoom de ñu ngi mel ni ay bàyyi ma wala ñoo gën a réer lu tax ñi mel ni ay bàyyi ma parce que yàlla da leen a bind pour ñu xam ko te jéemu ñoo xam yàlla moo tax ñoom bàyyi ma yi sax ñoo leen tane bal hum adal ñoom ñoo gën a réer ndax bàyyi ma yi amuñ xel muñ xalaatee te yow am nga xel moo xalaatee bàyyi ma yi togguñ leen jëf te yow dañ laa toggu jëf kon kañ yaa leen a réer te yow la toggu jëf mooy pour nga xam yàlla ko kon kañ yàlla ñooña la doon wax ne ay mbaam yu enu ay téere ay nit la doon wax de waaye mooy ñi nga xam ne defuñ li tax yàlla bind leen te li tax yàlla bind leen mooy ñi xam ne yàlla wa ida raaytahum tujibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasmaa li qawlihim ka annahum xushubun musannada mu ne boo leen gisee seen la ba nga foog ne la yàlla doon wax mooy ñi xamul yàlla rek te loola nag moo bëri ci jamono ji léeg nga gis am nit ñi naan sëriñ la ñi di ko màggal di raam ci doon tànk yaram wi foon tànk yi def lu ne nga jàpp na ku màgg la waaye waxtu waxee rek nga naa xay kan noon xusibul musannada a koy mu ne kii de mook bant yuñ weer ñoo em parce moom la tax ñu topp ko mooy mu ommate jëmale ci yàlla moom mag naan yàlla duñ egg ci moom kooku kañ lam enu enu téere yi comme mbaam mi enu téere rek jëriñëwu ci moo tax nag bàyyi bi mu dikkee nag daf ñoo jël yóbbu ñu ca pay yàlla ba bañ jeex ci yàlla ràññee yàlla xàmmee moo tax mu ne la nag walil fayda xaayisa faydu booba looloo tax ma am ko muy om nit ñi rek leen ci yàlla. la ñooñu doon junju man maay ki koy def parce que Baye dafa ñëw ngir uññil ñu kiiraay gi doxoon suñu diggante ak yàlla moo tax mu waxoon ñu dañu usilul xilaafa an ummati muhammadin fa yarfauna tawxida fi kulli mawtinin Baye mu ne damaa ñëw rek ngir dindi rido bi doxoon suñu diggante ak yàlla bañ jeex ci yàlla waaye emuñ ko bañ a tasaare tawxiid ci mboolee mi palaas yi lu waral ñooñu junj bàyyi ñëw omoon ñu yóbbuñu parce que Baye wax nañu ne ñu fa in dahijal aqtaabu fii kulli mashhadin raaw nii wan qaadu ilayya axlasu Baye mu ne xutbu yi ci yooni yàlla ba buñ gersoo rek buñ daw jëm ci man suñ man gindeeku moo tax nag biñ ànd ak boo booba lañ gindeeku ba la xutbu ya doon junj ñun passé nañ foofa te Baye waxoon nañu nañu maa aflaha man aflaha illa bi soxbati man aflaha mu ne ki texe ki raw dara mayu ko raw lu dul ànd ak ki raw moo tax moom mu ne ñu wahabtu jamia alfaisina walaa yi Baye mu ne leen muy ñi raw parce que daf ñoo dindil coono ya ca newoon moo tax Serigne Baye Mbaye Niass da daan wax naan kuñ dimbale dina yeb ku ko lu waral loola ñun dañoo ànd ak yàlla mooy bi mu ñu booleeg bàyyi tey waliyu yooyu Abdul Qadir Jeylaani mi def fanweeri at ci àll bi doog a xam yàlla tey bu nekkoon na ñun pour loola la kon dina néew ñu xam dina néew ci ñun ñu xam yàlla ndax boo xalaatee fanweeri at ni mu bëree rek amaana nga toog yow bàyyi xëccale ci fan yu néew ngay lekk li nit ñi di lekk tëdd fu nooy di naan lu sedd xëy rek mu sànni la ca pay yàlla ba nga egg foofa ba wax lu mu waxut kon kañ dañ laa dimbale moo tax bu nekkoon na coono la rek kon lam daj doo ko daj waaye bàyyi dañoo dindil coono ba lemal ñu yoon ba bañ egg fañ egg moo tax mu nañu kafaytu sihaabi fi tariqi ndogu bàyyi mu ne doy naa sama taalibe yi ci yoon ba ak ndimbal mu ne doy naa sama taalibe yi ci dindil leen bépp jafe-jafe ci yooni yàlla ba mu ne ñoom ñëpp biir jës bi naa la mun a ñoom ñëpp ci jës bu ca pays yàlla ba ca lañ amee seen ak càkkutéef kon kañ moo tax ñun ñëpp bàyyi dañoo yóbbu rek ba sànni ca pays ba ne ha anta wa rabbuka yéene ngoog yàlla ngoog bañ jeexee ca pays ba ba del si nag lañ doog a xam ki ñu yóbbu mooy kan ndekete ki ñu yóbbu mo baabul maftuux li kulli man yuridu wuruja ila xadarati qudsihi mooy bunt bi ubbeeku ñeel képp koo xamante ne nii bëgg naa yàlla ba parce mooy ki nga xam ne moo yor wiraasatul muhammadiya ak ahmadiya mooy kii donnu yonantu bi donnu Cheikh Tidiane donnu yonantu bi ba far gis ne mooy moom ndax bay waxoon nañu nañu ahbabtuhu hatta araani yakuntuhu wa rabbi lam yaxluq makaanan wala waqta mu ne bi may bëgg yonantu bi bay gis ne maay moom booba yàlla bindagul jamono booba yàlla bindagul place mu dem ba mu yàgg mu ne yonent bi samp na ko muy ambassadeur am ci mbindeef sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa shaxsin mu ne suñ ma ba génnee duñ gis ku dut yonent bi dem ba mu yàgg mu ne la nag xanaa xamoo ne fa ma qataahu fi charqi wal garbi fadfada ila makkata illa li summi shazayi mu ne xamaa xamoo ne ñay rëji rëj loo di buuxante fële ca màkka dara yo leen fa lu dul xenc sama xet man bàyyi ñu ne ko ah mu ne ñu walim laa wa aynil yawma aynu muhammadin sara sirrahu fii haykali waruwaayi bàyyi mu ne parce que sama jëmm ji mooy jëmmi yonantu ba te mbootam moo royaat ci man moo tax dafa yor wirasatul muhammadiya donn gim donn yonantu moo tax lii yonantu bi daan def moom lay def parce que ku donn rek ka nga donn lam doon def moom ngay def yonantu bi mu donn mission yonantu bi mooy inni lakum minhu nazirun mubin ñëw leen ma tegtal bi jëm ci yàlla gannaaw bàyyi moo yor wiraasatul muhammadiya moom it yoonam mooy falaa ahadun yaqsuduni ma arafa allahu samad yoon bi yonantu waxoon ne daf ñu laayee biir ku ma topp rek egg fa waaye emu fa mu donn it cheikh na ahmada tijaani mu yor wiraasatul ahmadiya ba xatmiya googa nga xam ne yàlla jagleel na ko cheikh na ahmada tijaani yi bàyyi donn na ko ndax xatmiya googa noona bëri nañu ko mébatoon te amuñ ko woon ibnu arabul xaatim yi ak li muy foor foor ba ci jamonoom moo nekkoon xutbu xutbee ci jamonoom demoon na ba mu yàgg mu mébét xatmiye googa ba far oote na moo ko moom dem na ba mu yàgg mu neñu binaa xatama allahu lwilayata fantahat ilayna fala xatma yakunu laha baadi wa ma faaza bilxatmi alladi li muhammadin min ummatihi wal gi góori yàlla yi doon xëccoo maa ko man rek maa ko yor kon képp ku bëgg a jëriñu ci xatmiye googa mu ne ci man man ibnu arabul xaatim yi waaye moom ko tontu bi di wax ak moom naan kaan yabna al arab laka ma zananta wa tamananta innama li waliyin akrama ala allahi minka yow ibnul arab loola nga njortu yaakaar na yaa ko yor yoroo ko de ki la gën a jege yàlla fuuf kooku ko yor booba moom it mu màndu ne sallamtul umura li xaaliqiha wa munshiha mu mbir ma jébbal naa ko boromam ci la waxee ne maqaama ba de yàgg naa kaa fuglu pour xool kan moo ko moom wanuñ ma ki ko moom wanuñ ma sax maqaama ba moo tax ma yaakaaroon ne moom la ndekete damaa eggagut ci moom moo tax gisaguma ko woon it bàyyi nee na donn naa ko parce que bàyyi nee na ñu xamaltu sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna dawqi wa diraya anjadani lisaanu xaali jaari taxaddudan bi nafaxaatil baari bàyyi mu ne mboot ak xaatimul wilaaya googa enu naa ko man bàyyi mu ne jamaatu bayna dawqi wa diraya boolee mi xam-xam buy gongee koo ci pays yàlla ba ak xam-xam bu ñuy xool ci kayit bàyyi mu ne dajale naa ko ba toog ci kon kañ mu ne la yooyee dajale na ko moo tax bàyyi ci ñaar ñooñu rek la géejoo moo tax moo xoolal na la ulaayka abaay fa ji nii bi mislihim yow miy buuxanteeg man yow miy xëccoog man ñaar ñooñu ñooy samay bàyyi indil ma ñu mel ni ñoom moo tax Mouhamed Moustapha Alawi bi muy tagg baay def na ko te dalla amin dal abdayni lillahi darrahu wa darrahuma nahlan wa manhala fa fii faydati l irfani shabaha awalan wa fii nafi ilmin shabaha axira mu ne ko dëgg-dëgg yaa ngi géejoo ci ñaar ñu màgg ñooña faydu bi nga yar yaa ngi ko doonne ci ku mujj ga muy Cheikh Tidiane xam-xam bu rëy bu foor bu leer bay jëriñe yaa ngi ko doonne ku njëkk ka ci muy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax baay ñaar ñooña rek la doon moo tax doonnu na Cheikh Tidiane ba doonnu xilaafaam nga ba waxoon ñu ne nañu is annani xalifatu tijaani mawhibatan min ahmad al adnaani mu ne xilaafaak cheikh na ahmad al tijaani ga nit ña doon xëccoo bàyyi mu ne man maay ki ko donn maa ko yor waaye laata bàyyi di wax na moo donn xilaafa ga fekk na ñam ko waroon a xëccoog ñoom ñëpp nee nañ ko yaw la Sukayrij ma nga xam ne moom lañ doon jiiñ ne mooy xalifaay Cheikh Tidiane moom moo xool bàyyi ba mu yàgg mu ne ee eh, yéen sëriñ si shahidtu lakum fathan mubinan bima lakum bihi alxaqu min bayna albariyati xad xassa mu ne ee eh, yéen sëriñ si maa ngi leen di laayee biir ci may gi nga xamante ne nii yàlla feeñal na ko ci seen biir may googa mooy lan xanaa xamu leen ne bàyyi mii mooy ki nga xamante ne nii warasta ani cheikhi Tidiane xilaafatan wa inni anastu lakum nasa mu ne ko yaay ki doon na Ahmad Tidiane ga yow yaay xalifaak Cheikh na Ahmad Tidiane mu eh, ñi maa ngi leen di laayee biir loola mu teg wa inni ara cheikh tijaani xaatiman fa anta mu ne bu dee cheikh jaaru la yow bàyyi yaay teg way taaral jaaru wo bañ mën koo xemem ba koy sol kon kañ moom miñ doon jiñ xalifa ak cheikh tidiane na ne ba ne bàyyi mooy xalifa cheikh tidiane fii ci sénégal kiñ fi doon jiñ xalifa cheikh tidiane muy abdou aziz si moom mu ne ko yaa nuxbatal ulama yi kenzul masakini cheikhil fi fil islaami wa diini. Alfayda FM. Cheikh Abdou Aziz si moo wax bàyyi na ko yow yaay nuxbatul ulama su ñuy tànn borom xam-xam yi yow yaay tànneef ba ca gën a kare. yow yaay ki nga xamante ne ni yow yaay seen taar. yow yaay làquwaayi miskin yi. cheikhul mashayixi fil islaami wa diini. yow yaay sëriñi sëriñ si ci fànnaay lislaam. mu ne ko sulaalatul qutbi Abdullahi waarisuhu. mu ne ko dëgg-dëgg yow yaay doomi qutb bu mag ba di alxaaji Abdullahi. waarisuhu yow yaay ki doon mbootam. pour nga xam nag alxaaji Abdullahi mu mag mooma nga xam ne moom la wax na ko yow bàyyi yaay ki doon mbootam bàyyi ci Suudaan dañ koo laaj na ko yow kan moo la jàngal bàyyi na waalidi huwa ustaazi mu ne sama waajur alxaaji abdullahi moo ma xamal li ma xam lépp waa ji xool ba yaay ba mu yàgg mu ne cheikh ibrahima azamu xujjatin lilxaaji inna alxaaja kaana azima mu ne dëgg-dëgg mooy lay wi gën a rëy ñeel alaaji abdullahi mu ne kon ci bàyyi ngay xamee ne alaaji abdullahi ku màgg la kon alxaaji abdoulaye mu màgg mooma nga xam ne bàyyi nee na amul sikk ne amul ku gën a nekk maalaaji abdoulaye xalifa cheikh tidiane fii nii ci sénégal mu ne ko yow yaay ki nga xam ne yaa donn mbootam ma waaye emut foofa de lañ koy jiiñ moom sëñ abdou aziz si muy xilaafa ak cheikh tidiane moom moo wax bàyyi na ko xalifatu cheikhi xaqan duuna taxminin na ko dëgg-dëgg yow yaay xalifa cheikh na ahmada tidiane ci lu amul benn werante kon kañ moom moo seedeel bàyyi na ko yaay xalifa cheikh tidiane waaye muy continuer di ko tagg ba mu yàgg mu ne ko wa kunta li diini shamsan yustada alqadaau biha bayna almahaafidi fii yusrin wa tamkinin mu ne ko dëgg-dëgg bay yow yaay janti diine wi nga xamante ne nii moom la ñuy leerloo mu ne ko baynal maxaafili ci jotaayi xam-xam yi ku soxla xam-xam ku leer lu ci xam-xam janti diine ba ñuy leerloo mooy yow yow bay waaye nag ci lu yomb fii yusrin wa tamkinin kon laata bàyyi di oote ne mooy xalifa Cheikh Tidiane booba la ko ñam ko waroon a xëccoog booba lañ na ko yow la moo tax bàyyi taxaw nag nañu yaaman yuridu tijaani ayi musaafahatan fii bayti barhama tulqiha mukaafahatan fa lam aqul fanadan wala mubalaga wa in aradta fasalniha muwajaha bàyyi mu ne yow mi soxla gis Cheikh na Ahmad Tidiane mu ne ñëwal néeg barhama boo ñëwee da nga jàkkaarloog moom jahran mu ne fa lam aqul fanadan wala mubalaga bàyyi mu ne waxuma ay kaf waxuma ay caaxaan de wa in aradta fasalniha muwajaha soo ko bëggee ñëwee rek ñëwal laaj ma ko da nga jàkkaarloog man booy jàkkaarloog man di ko gis mu ne ñu bi maqbadi cheikh yi miskunti musaafaha mu ne ku bëgg a nuyu Cheikh Tidiane boo ko nuyoo rek nuyu nga Cheikh Tidiane lu waral loola parce que mbóot ma moo royaat ci jëmm ja ba bàyyi waxaat ñu ne ñu mbóot ma moo royaat ci jëmm ja ba bàyyi waxaat ñu ne ñu maxaqat daatu cheikhi daati wa awsaafun lahu awsaafi fa Alfayda FM moo tax bàyyi mu ne jëmmi Cheikh Tidiane effacé na jëmmam mu ne melooy Cheikh Tidiane effacé nay meloom bàyyi mu ne ñu fa kulli adimun man bàyyi sax amatuma ñu ne ko kan moo am mu ne fa ana dalika alxabibu soppa booba di Cheikh Tidiane mooy man ñu ne ko ah kañ nga ko doon mu ne mata ufnitu fihi fa daka umri marumu mi ne bi ma jeexee ci moom rek laa far nekk di moom waaye bàyyi jox ñu benn cax mu ne fa tabada qutbul faridi arahu laabidan surati fa taaba liqaawu bàyyi mu ne Cheikh Tidiane daf ne tel génn mu ne ma gis ko mu melowoo sama melowax ci junj xaqiqatul ahmadiya moo meññ ibrahimiya ba pare ahmadiya feeñ ibrahima ne ma gis ko mu melowoo sama melowax kon baay bi mu lay wax ne la maay Cheikh Tidiane waxaale ne la ne la maay yónnantu mu ne fa taaba wu ndaw dajeebu sell moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu mi nga xamante ne nii moom lañ doon waxtaanee mooy ki nga xamante ne nii amut kuñ koy dendale amut meloo amut niroo te jamono mënta indi ku mel ni moom ndax xalafa zamaanu la na bi mis mislihi kazabat ko ya zamaanu fa kafuri bi jamono gëñee ne mën naa indi ku mel ni Baye dañ na ko yow jamono fen nga sa gëñ googa kafaara ko ku mel ni moom amut moo tax Baye ne la hal absarat aynaka misli saira ndax sa bët mës naa tege ci ku mel ni man Baye may na may soobee wa jës bi ak na may jës bis boo ñëwee ca pay yàlla ba wal ulumu fuyutu ak xam-xam ba na muy dottee ko ku mel ni kooka bët ma sutee tege ci moom moo tax léeg-léeg bu yàlla mayee nit may gu rëy ku ci nekk da cay jéem am wàll waaye nag mayegee yàlla moo mel noonu te ku ci ne wàll gan nga cay jéem a ut fekk na bàyyi romb na foofa ndax bàyyi waxoon nañu nañu udriku man mada afuutu man baqa wa in tasabaqa rijaalu asbaqa mu ne la ñama jiitu woon dab naa leen ba romb leen mu ne ñama départ ndoor ak seenatuñ ma wa in tasabaqa rijaalu asbaqa waxtu wu góori yàlla yi suwar ak fekk na raw na misaal bi yomb na te leer na waxtu woo tuddee Baay Ñas boo koy tëkkalee sëriñ rek ñu ngi koy tëkkaleeg morom yi baayam lañ démb paaw seenu ñes yokkal na ma dina ma même photo yi sax photo bañ koy photo yi ñu koy booleeg photo sëriñ sax morom yi baayam yi ca lañ koy dugal kon kañ loolu moo nekk ne ñu ko jiitu woon dab na leen mu ne la nag ñama départandoo rek seenuñ ma lu waral seenatuñ ko parce que duñ leen tëkkaleeg moom parce que romb na leen mu ne la nag wa inta saabaqa rijaalu asbaqa mbooleem départ te lay tax góori yàlla yi di njëkkalante muy donn yonent bi bàyyi mën a donn naa ko bu yàgg moo tax ci biir tariqa tijaan may gi mu yor li muy foor foor am na ñoo xam ne ñi ngi bëgg a ut paar am na ñu naan bàyyam alaaji abdoulaye ñoo ko joxoon lijaasa waaye ki dem faas ak ki demut kan kañ moo war a am lijaasa te koy jëlee ji mooy faas kon kañ ki dem moo war a am te alaaji malik si dëggal na loola moo tax alaaji malik si dafa wax alaaji ñu ngi sant yàlla ci loola ataa wa yunshiru miskan fii mawaasimina mualliman kulla anwaahin wa ajnaasi mu ne ñëw indi las ko lañ gëtt gu neex di ko tasaare ci mbooleem gox yi di xamal mbooleem ñi réeroon la leen umpoon mu ne ataa yubashiruna fallahu bashirahu mu ne ñëw ne ngir bégal suñu bu nekkoon ne dafa ñëw ngir jël si kañ dafa ñëw kon pour jël si kon du wax ne ñëw na pour bégal suñu ataa yu bashiruna ñëw na ngir bégal suñu kon am na lu mu koy indil fallaahu basharahu mu ne alaaji abdoulaye daal yàlla bégal na ko mu ne qiinaa rabbi ilaahi kayda xannaas kon yow yàlla musal ñu ci pexe moo tax it bokk na ci wax na moom alaaji maalik su ne yow yàlla yàlla ñu muccal ci ak sikki sàkk ci li nga xamante ne yi booba ak tijaan yu ñes ñeseen booba indil ko kon lan la ko indil ba mu a rëy mooy lan tursa xalfa silki sayyidina mu midd kullihim min nuuri silbaas dafa xool maa ba mu yàgg mu ne ko xat fuxta raw nga moo ne ko raw nga is tursa xatma silki sayyidina ba nga siyaaree sang ba muy Cheikh Tidiane moom mi nga xam ne mooy tëbb ñëpp ci leer gu daj googa kon kañ keneen ku ci ut cërit bàyyi moom la mu yor moom yónnantu bee ku ko jox maa laaj sax ba muy dem paas bokk na ca ñeent yam doon uti mooy yor xir xutbaaneetu ga ak xilaaf ak na bi mu amee ñett yam soxla woon muy péri kursi Cheikh Tidiane ya pour barkeeloo ko ak dara ci karaw Cheikh Tidiane pour barkeeloo ko ak lijaasa litlaax ba mu dese ko benn nee na bi muy tàggatoo ak Cheikh Tidiane la gis bàyyi ci biir xabru Cheikh Tidiane bàyyi ngi taxaw ci kaw xabru bi mu ne booba la xam ne am na ñeenteel ba ci 1911 la booba bàyyi 11 ans la am mu ne booba la xam ne ñeenteel ba nangu na muy xutbaay ne tu Usmaan gam doon ñaan ak xilaaf ak Cheikh Tidiane nga feeñ na ci doom jooja di bàyyi kon kañ keneen amu ci cër dañuy leeral ndax Baye moo daan leeral ci bi ñuy def zaawiya lew nañu seen bii Baye def na tey ba ci histoire la ci diine parce que sëriñ si yëpp a ngi teew booba sëñ Cheikh Mbacke ngi teew sëñ Abdou Aziz mi ngi teew Thierno Abdou Hamid Kane mi ngi teew Baye na gannaaw sëriñ si Sénégal a ngi nii teew kon nañ leeral bokk na ca ya Baye doon leeral timit mu ne ñit ñi ñu koy tuumaal sëriñ Touba jox na ko suuf Baye nee na moog sëñ Touba seen bët yi musuñoo tegante Baye moo ko seen bët koo gisante wut ak nan la lay joxee suuf bis bi muy aji la doog a génn Saalum te Serigne Touba mi ngi gaañu la gaañu ba 36 7 ans bàyyi doog a génn Saalum pour aji ji mat lu ko mooy bàyyi génnut Saalum ba 36 la bàyyi doog a génn kon ke ñaar ñooñu fan la ñuy gisee bañ lay joxee suuf moom amut waaye toujours nag taalibe day yokkal sëriñam pour yokkalee ko garaat te Sukayri dafa doon wax naan taalibe bi yokkal sëriñam garaat di ko sosal kooku dafa nekk ci danger mu ne ma naan diw démb dafa wérdu ba bidon wadd ci tànkam dafa def nangam di ko sosal moom ci boppam xam na li muy wax ay fen la ay sos mu ne bés bu sëriñ bi defee benn karaama ñeneen fekkee ko buñ toogee di ko nettali moom li muy jàpp ci xelam mooy dañ koy sosal comme ni ma koy sosalee rek te fekk loola dëgg la kon weddi ko ci xolom amee ci ak xalam moo tax mu doon wax naan bàyyi leen di sosal seeni taalibe bàyyi nag la ko yàlla jox mënuñ koo ma jada bàyyi mu ne yonantu bi rek mooy ki méngoo sama mbir yëpp te dañu di ma jàppale ba góori yàlla yëpp màggal ma inna rijalallahi daanu li taati wali bi rasulillahi dirhun muxallasu bàyyi mu ne mbooleem góori yàlla yi sukkal nañ ma ndax damaa amee ci yonantu bi may gu kenn amul waaye nag doom ju baax su tekkee ñëpp ne suñ doom la ku nekk da cay bëgg a am cër su baaxee rek ñu ne suñ doom la ku nekk nag dañ ci am cër waaye nag bàyyi moom la ko taalibe bu fi nekk yàlla daf ko teg feebar ci problème yi bët tam war a faju nekk suñ mbokk ci yàlla nekk it mbokku taalibe teew na ci jotaay bi di ut ndimbal nga jug ndànk ci biir nit ñi bu kenn jug pour ku ci nekk la nga koy dimbalee te yàlla tax te ku def da nga gis ñi dajaleel ko ko ñi dimbalee ko ko mu ngi ci biir mbooloo mi yàlla na ko yàlla may wér taalibe baay bu dëggu la ndax démb conférence bi ñu doon def bi ñu paree wan nañu lu tax ñu xam ne taalibe bu dëggu la ndax posé na fa ñaari question yoo xamante ne ni ku dund ci yàlla du ko posé sama xel dama ne ñun de ñu ngi weer mbóot parce que question yam doon posé foofa du ma ko defal te Cheikh Ibrahima Niass dina gërëm yàlla dina gërëm si tëj Cheikh Ibrahima Niass bi nga xamante nii si ngeen ñu santoon ñu waxtaan ci bàyyi de daf ñoo waxoon nañu moom dafa jeex ba amatu fa dal abdu faanin laysa fihi baqiyatun fa ma huwa illa al mustafa lil munaqi baatili fa maa huwa illa ahmadun wa muhammadun wa maa huwa illa ma wara al aqaawili baay mu ne moom jeex na ba amatut ñu ne ko kan moo am mu ne man boo booy xool daal du ma kenn ku dul Cheikh Tidiane mu dem ba mu yàgg mu ne la wala boo gënee xóotal da ngay gis ne man baay du ma kenn ku dul yonantu bi nga dem ba mu mu ne la boo gënee xóotal da ngay gis ne man bàyyi tuuma kenn lu dul maa waral aqaawilu lu dul ka gannaaw wax foofa nag ñi fa bàyyi yóbbu rek ñoo ko xam ku fa egg xam lu tax bàyyi na maay ka gannaaw wax wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.